Bienvenue sur Salam Vision. ngi leen di fay di leen ñaanal jàmm ñu ngi dugg di yàlla ngeen ci si nawet maa ngi leen di alhamdulilah bi nag moom man su ma sañoon gaaw a jeex ndax daanaka heure bi nga xamee ne bii lañ koy defee nit ñu bari wàcc nañ ñu di seen i kër def waaye nag nañ ci ànd ak dimbali nit ñi parce que Sénégal transport bi doyul. nit ñëpp yoruñu ay oto même bu ngeen amoon oto embouteillage bi du ngeen mën a day ci yoon wi ba ku nekk mën a yegg sa kër ñoom ñi nga xam ne ñoo war a garder lool nag ñoo war a xool kii nga xam ne kii dafa doon liggéey ci farata bu wàccee ñu fexe ni ñu ko jàppalee ba mu mën a ñu ci bi ñu koy def heure bu normal la bu ku nekk waroon mën a ñibbi sa kër ci yoon ndax feebar yi bari na fi bari waay boo xam ne bii ñoom wax nañu ne baaxul ci mag ñi te xale yi ñooy ëpp lu ñuy génn su ñu génnee bu ñu jël seen i njëkk seen seen te comme ñoom ñi ngi ragal naan suuf si dafa attantul nit ñi dañoo bëggoon ñi nga xam ne ñoo magee ñu dem mag ñi dem mu ñu sañoon dañuy bëgg nit ñi kuy dox nga dox farata bu farata nga dem yëpp. Obala bi nga xam ne moo fi xewoon ñu ne jeex na ñëw na Guinée. tey jii rek ci journal bi di naa rey nañ ñeenti nit bokk ci Guinée te Guinée ak Sénégal benn la lu xëyee Guinée Sénégal lay fanaan kon ku ci mënoon wàññi sa ndox di ndox farata bu farata jeexee nga dem ñibbi ñu def ko wax ne gars yi ñu ngi protesté wu parce que foo fekk léegi mu nekk masque bi gis naa ne sénégalais daanaka jëriñ na ko tuuti ko tuuti jëriñu ko dara parce que da ngay fekk lu mat fukki nit ñu yor benn braada dañ ciy attaaya naan jox sa morom doo gis sax ñu raxasaat kàddu kon prophète bi ñu santoon ne nañ ko def lan la jariñ léegi parce que boo xoolee fukki nit a ngi nii ñaari kaas lañ yor wala ñetti kaas nit ñi bokk ñëpp ci naan lekk mën na nekk parce que su kudd nga yor ma yor sama kudd bu laax boo xam ne bi day tasaare nga def yëpp loolu mënoo nekk mënul jóge Sénégal mais attaay daal yaakaar naa ne ni ñu ko organisé Sénégal fii mënoon nañ ko gën a organisé waat ba nga xam ne bi du demee ni mu daan demee dëkk bi nag liñ ci wax noonu la ñun ñëpp ñoo ko bokk su ma soobee daal ñu dimbali xëykat yi bàyyi ko ci heure boobu ñu wax 9h na ku nekk dem ñibbi sa kër waaye ku ñu fekk ci 9h ci yoon bi ngay dox farata ak sunna yomb na xam ne ngeen fexe ba dimbali ko day ñibbi kër Massar am ñoo xam ne tey ñoom foofu ay yoo xam ne dimbali nit ñi ak ñibbi kër Massar oto bu ko safee foo jëm kër Massar dañ ko dimbali borom dem bu ñu amee dañ nit ñi parce que nit ñi dem dañu liggéey amuñu oto heure la ñu wàcc mais am daal dëkk bi moo xat xataay boo xam ne bii ku ci nekk boo sañoon nga egg sa kër boobu waaye doo mën a egg sa kër boobu yow mi ñu samp tali bi nag pour ngay loolu nekkal docteur bu baax a baax boo xam ne bii yaa ngi dimbali nit ñi ci ñu ñibbi seen kër saay saay bi nag yéen ngeen xam nu ngeen def ak moom waaye fi nga xam ne kii daal dafa liggéey woon bu dee daa wàcc yomb naa xam ngeen jàpp lañ ci loolu loolu daal su ma ne couvre-feu bi baax na masque yi baax na marché bi ñu ci wax teel na ñu ne nit ñi wàcc leen cinq heures te marché yu bari bëri la seen liggéey di commencé ñu dimbal leen yóbbu leen ko ba six heures ci ngoon bu ko defee léegi nag lu waay doon jaay mën ngaa ñibbi ki doon toog reer te guddee mën naa toog reeram dem dugg ca marché ba dem ki nga xam ne fa nekk nag ci benn ci biir nekkul ci biir marché bi foofu dem dimbali ko xam ne kii nekkul ci marché bi bariwul ay nit yu fay ñëw benn nit bi ñëw ñaar ñetti nit kooku jarul ne ko tëjal loolu dem daal bu soyoon ñu xoolaat ko bu baax yebal ay boroomi xel ñoo xam ne ñu ngi dugg ci quartier bi di wax ak nit ñi di leen jàppale indi yéen liggéey parce que Sénégal dëkk la boo xam ne tubaarkaal naqariwul neexul ñii dañuy xëy li ñuy lekk tey jii lañ koy wut ñi ci ëpp saa buy xëyee li ñuy bëggal reere tey jii tey jii lañ koy wut kooku boo ko bëggee euh, ne ko del xëy heure bi di wàcc heure bi jublu nga fayloo ma 3000 francs te police nga ñuy jàpp di francs yoo xam ne ñoom itam ñu ngi ci jële xaay boo xam ne waaw buñ ci jàpp ñaar sa yaay moo dem dajal wala sa doom mooy dem dajal 3000 fekk la yëpp ba mu la fa te 3000 ba mën naa doon seen dépense nañ ko organiser nii ñu ko organiser heure bi baax na waaye nañu organiser dimbal nit ñi ba nga xam ne bii ki nga xam ne bii mu fulla la li du fayda la nga dimbali ko moom mën a ñibbi kër te doo ko jàpp di ko laaj ay 3000 ak 5000 loolu daal jërëjëf léegi Papa waaw ñooñu nga xam ne jéem bëgg waaw ñoom itam xalaat la rek parce que xëy na ki nga xam ne kii heure boobu la intérêt di soog a commencé xamee intérêt ba xam ne bii moom 9h jëm kaw la bëgg su fekkee waaye nañu xam ne feebar bi dañ ñu wax ne ñoom borom xam-xam ñoo ñu wax ne ñu feebar bi sedd la te sedd heure boobu lay commencé sedd dañuy commencé 9 8h ba fajar jot. su fekkee ne nag heure boobu demoon nañu tëdd circulation bi lu bon bon dina wàññeeku dina wàññeeku nit ñu daje bi ñu doon daje wàññeeku nag ñu heure bi tey ñoo ngi toog fi di gën a place bu huit heures jotee doomuñu fekk waaye fii naaj am naaj am na comme affaire bi baax na ci naaj bi baax na ci ñi nga xam ne bii ñoom la feebar bi jàpp bu ñu dajaloo bëccëg bi huit heures ba huit heures ci ngoon wax dëgg yàlla nañu fexee tasaaroo ku nekk dem ndax feebar ba bañ a bari doole marché yi xaw a wàññeeku nit ñi dem parce que suñu marché bi ñu wax naan ko na nga wàcc cinq heures balaa cinq heures marché bi wàcc na cinq lu leen fekk ñoom sax waa marché kon jarul woon ñu fa yebal police mu sonal nit ñi wax dëgg yàlla ci nangu seen i trois mille nangu seen i nangam nangam mënoon naa ñaar affaire bi waxtaan la rek bu ñu waxtaanee dañu mën a dem ñi nga xam ne bii dañoo xool naan euh, affaire couvre-feu bi warul dañu seetluwul ne docteur yi ñoom ay borom xam-xam la parce que adduna noonu lay demee kii maçon la booy laaj liggéeyu maçon la da nga koy laaj kii menuisier la booy laaj liggéeyu menuisier la da nga koy laaj docteur bi tam bu ñu ko xeeb ñoom ñoo ñu fi nekkal suñu wér-gu-yaram ñoo ñu fi nekkal temps yi bu melee nii bul dem gis nga géej bi dañ toog ba si yàgg dëkk bi am xam-xam ne leen suba bu leen dem géej géej day fees day def nangam nangam bërk dem ba rek gis nga juróom-ñaar nit a ngi euh, ndar yoo xam ne bi ñu koy bi avant ñuy dem euh, météo wax na ci man déglu naa ko météo nee ne bu subaa bu kenn dem géej ndax géej de fees ñi jotoon dem ba léegi juróom-ñaar nga fi ba léegi gisuñu leen loolu nag xam-xam la man mi toog fii rek mënu moon na xam ne géej ku fa dem man nga ci am problème kon nag bu ñu weddi ñoo ñu nga xam ne dañoo am xam-xam ci affaire bi ba ne la huit heures neuf heures na ngeen dem ndax feebar bi mën a dal ndax dajeetu leen giseen teentu leen bu dee feebar bi dal na ba subaati ca sept heures ngeen jógati loolu ñu may itam ñu xam ne boroomi xam-xam ko wax bu caageenu Macky Sall moo ko moom bu caageenu chef moo ko moom kenn moomu ko suñu wér-gu-yaram moo tax ñuy wax ñoom ndax buñu nit yëpp muy feebar léegi hôpital ku ñuy faj ñu dee ba médecin bi feebar mu koy faj loolu daal laa doon ñaan ñëpp am ci xalaat dimbalante xale yi dimbali mag ñi comme feebar ñu gën a yar di dox farata farata jeexe ñu dem tëj waaw ndax actualité bi nga xamante ñii naan bisaab bu ko naka wax moo si sama xalaat day man suur boo ko njëkkee dégg wax naa ci samay doom nag dañ di ay xale yoo xam ne xëy na ñu ngi ci affaire politique xëy na affaire xale la bi ma bi ma déggee coow li nee naa Sonko de juum na du ma politicien de waaye nee naa Sonko de juum na parce que bu fekkee ne élection dafa am ci am réew nga dem fa ba nekk fa ci troisième personne yi nga xam ne bii ñoom lañ doon élire nga nekk seen troisième kon war ngaa xam ne dootoo nit mu ndaw rek war na fooy dugg muy foo war a dugg war na fooy génn muy foo war a génn. grand place lii ma def nii waratul Sonko te xam naa su ma ko mënu jur tam li tey mën koo jur bariwul mais sama grand place bii tey jii ma def nii waru ko foofu mu de defi massage bi waru ko woon jullit gi mu wootee dafa woote ne jullit la contre ma ko de contre ko waaye moom moo ma won ne man jullit laa moom laay gis ci ay waxam moom laay gis ci ay solo mu wane ne jullit la xasoor bu toll ni moom warul dem summeeku ci kem xale bu jigéen mu di ko defal massage te du doomam du yaayam waru ko lislaam dàq na loolu bu fekkee ne ñu wax dàq na loolu mu bu fekkee ne problème personnalité la personnalité am waroon na rob dem ci kër gu mel noonu di ko defi massage am na yeneen kër yu mag yoo xam ne agré am nañu agrément bi boo fa demee kenn du la yenn bu la fa ndogal fekkee nañu xam ne lu war la da ndogal la fekk waaye kër gi war nga fi ñëw yooyu yëpp am na waaye seet benn kër boo xam ne bii benn waaye moom moo ko jànge woon am si moyen nekk ci biir kër ga xëy na yéen ngeen di fa ñëw yéen a ngi ñëw ci ñëw boo xam ne bii wax dëgg yàlla neexul warul warul jëpp ku xam Macky Sall rek ci Sénégal xam nga Sonko ku xam Macky Sall Sénégal rek xam nga Sonko Sonko waroon naa fa boppam teg ko fu romb foofu diineem ji ma woon man ji ma gis télé musuñu musuñu am musuñu gisante tey daa teel gisul am waaye nag ci télévision la mu won ma ne ci li mu soloo mu won ma ci li muy def ne jullit la ma dëkk moom xombal itam xam naa fa leen xombal man xombal waa xam naa fa leen xombal wane na lislaam boo xam lislaam bu baax la kon waratul ñëw di summeeku ci kanamu xale bu di ko wan ginnaawam ne ko démb a diwal fii démb a diwal fii ko moo ko def ak defu ko nag koo bëj dara yàlla rek moo xam. moom contre ma côté boobu li ñu ciy wax yëpp amalu ma njëriñ li ma amal njëriñ mooy julli da waru koo nangu deuxièmement waru woon dem ci façon kër yooyu ba def bàkkaar loolu daal juum na ah, gars yi exploité nañu ñëpp juum dal nañ ci kaw. ok waaw. Ah. gàddu gi rafet nañ trop ñu ko rek ci actualité bi ak ak ko bi nga xamante ne daal gàddu gi. waaw. ñu bëggoon a xam rek couvre-feu bi nga xamante ne daal 4 jours. loolu lay jeex yàlla dina ñëw te bëgg yàlla dogal bu ñëw dëgg yàlla ko xam xam ne ku fi neexul parce que liggéey ëpp ci liggéey presque lépp lépp lépp lépp tey tey parce que liggéey presque kon boo defee ko fa duñ liggéey day métti ñoom trop ñun tamit yemam ci indépendance doo ko ci xañ rek day métti. ba tax na ku fóot moom yàlla na ko yàlla jël ànd xëy na liñ ko teg feebar la moo tax mën nga kenn mën ci manifester kenn mën ci dara feebar moom ku naan moom ce que moom feebar bi parce que man feebar bi presque maa ngi déglu bi rajo bi loolu yi feebaree presque léegi mën nañu kay ñun ñoo war a xool ni ñuy def di xool ñi ñu ngi takkee suñu masque et puis di xool ñu ñuy jigantee ñu wàññi feebar bi léegi ma yaakaar mënu ci fexe ba dara man sama yaakaar actualité bi nga xamante mooy daal ak kii yi nga comme bi ñëpp xalaat rek parce que xam nga affaire yi moom xalaat rek nga fekkewoo fekke woon te loo fekke woon mën na ci dugg baaraam xëy na bon da ngay dégg ñuy wax fii ñuy wax fii kon ni ma déggee daal man Sonko man moom laa xaw a xeeb parce que moom du ko ndaw quoi Sénégal dafa am yaakaar ci moom léegi ñëpp dañoo compter ci moom ñun France bi di ko xaar da dégg ñaan Sonko day entraîné di jaar ci kii bi dina ma fay jaar. nga dajee koo xamante ne noonu la parce que xam nañ Sénégal xam ne affaire yi ñu bis boo xasee ba nekk ci euh, boo ba nekk quelque bon yaa ngi tànt ay dina tànt ay pièces yoo xamante ni mën na nekk wala mën na nekk bon foofu daal moom ah wóor foon nga sama xam-xam bu ndaw wóor foon nga parce que dem ba mu fa dem moo andi coono lépp wala buy dem te mu ñàkk a dem mu ànd ak jabaram ànd ak gàllankoor ba egg jabaram ñu maaj bu boobaa. xam moom nekk nit boo xamante ni dafa war a dem moom kese kese kese fenn ndax ku dem kese fenn wéet fa mën la wax ak yow la ndax mën la mën la mën la drogué mën la def lu ne kon daal man moom laay kontaan yàlla na ko yàlla seetal nag ba li ñu koy jiiñ yàlla buñ ci laal ndax bëgguñu mu laaj yàlla buñ ci laal loolu daal lu mu jiiñ arrangé ñu donc sëñ bi ñu ngi lay bu baax a baax donc ñëpp ñoo ko dégg rek bu fekkee ba actualité yi nga xamante ne mooy soppi ak li gis tamit ne toujours dans quatre jours la doon jeex donc askan bi lañ fi nekkal ci suñu émission kàddu askan bi la woon fii si Salam Vision et merci à la